lijjanti beneen euh, kiiwu son bi mhm. asalaatu wasalaamu alayka ya rasulallah asalaatu wasalaamu alayka ya habiballah ya rasulallah xud biyadi ma li siwa fa anta nuurul hudaa fi kulli kaa'inatin wa anta sirrun nadaa yaa xayra mu'tamadin inni idaa massanii daymun yurawwi'uni aquulu yaa sayyida saadaati yaa sanadi kulli shafiyan إلى الرحمن من دلل وامن علي بما لا كان في خلد واعطف علي بعفو منك يشملني فإنني عنك يا مولاي لم أحد صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا لم الهدى tabarakallah macha allah di ko di di ci bégal waa Mourchid FM bu Tiwaawan macha allah di ko may waa Mourchid FM bu Tiwaawan di rafetlu liggéey bu am solo bi nga xam ne gis nañ ni yéen a ngi koy def foofu ca ca Tiwaawan laata rek ñu ñuy demaat xam nga ne dañu